Heavyweights.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

ba tax ñaari entrepreneur yooyu daal di gis ab sëriñ ngir mu defal leen i débat déeb ba seen business mën a yokku maaman bi ñu dem seeti mu ngi wuyoo ci turu M Diop at yi toll ci juróom fukk ak juróom benn ñaari entrepreneur yooyu bi ñu ko waxee seen i ci la leen M Diop di sëriñ bi ne leen mën naa ko <laughs> ñoom de lépp la ñu mën ne leen mën naa leen a defal ay débat déeb yoo xam ne mën ngeen a yokku waaye pour nag loolu am ngeen di jënd ab parfum bu tudd Catadalia parfum ba mi ngi jar huit cent mille francs j'ai pas bien comprendre. naka noonu la leen yabalee ci ab commerçant buy wuyoo ci turu Deejoob ne ca jàmm gën dë ca Mbuur ñaari entrepreneur yi daal di dem ca commerçant ba mu jaay leen parfum bi ci huit cent dix mille francs <laughs> ne nag lu tax mu teg ci dix mille yi parfum ba daa yokku bi ñu ko indee ci sëriñ bi sëriñ bi bi mu defee ay déeba déebam daf leen woowaat ne leen def na déeba déeb yi waaye nag jinne yi nangooguñu ngir jinne yi nangu nag faw ñu jëndaat beneen parfum katadalia bi loolu amee ci la ñaari entrepreneur yi dal di dellu ca commerçant ba mu jaayat leen parfum ba lu toll ci huit cent quinze mille francs moom daal boo boolee ñaari parfum ya mi ngi toll ci un million cent vingt cinq mille sëriñ bi nag bi mu encaissé xaalis bi may la dal di def entrepreneur ya gisatuñ ko déggatuñ ko ci lañu ñu porté plainte ba sëriñ ba ñu ngi ko tegee loxo ca Thiès lii da lañ naan njumanoo sant mun a wel <laughs> da ngeen a bëggoon lu yokk rek am ngeen lu yokk ba ñu tegee loxo sëriñ ba nag ci la dil ba feeñ ndekete sëriñ ba ak jaaykatu parfum ba ay complice lañu sëriñ bi ku ñëw ci moom ngir mu defal la ay débat déeb da lay yebal ci commerçant ba bu ko defee commerçant ba jaay la parfum ba ci som takku gannaaw loolu la ñuy gisante waa ñoom ñaar dal di xaalis ba commerçant bi nag nee na moom pee di nijaay ci moom moo ko boole woon ak sëriñ bi te parfum yooyu ci tàmbali ga doon nañ ko jaayee soixante mille francs bi mu demee ba yëf yi dox dil bi dox ñu koy jaayee six cent mille francs ba tey mu yegg ca huit cent mille te ñi koy jënd ñëpp sëriñ bee leen fay yebal <laughs> ay waay waay waay. mu daal je suis peur moo tax ndax ñoom ñetti dealer yooyu yëpp teg nañu leen loxo te boo wattuwul dinañ leen daan lu toll ci ñaari at moo tax maa ne jàngoro gi dal réew mi moo gën a graaw corona laa wax kii nag ab mécanicien la waaye ñu ko tuumal jéggi na dayo de ndax ab jigéen bu am jëkkër at yi toll ci fanweer ak juróom benn moo ko tuumal ne daf ko séquestré ba noppi violé ko përpëloo mais c'est bi mu ngi wuyoo ci turu M Dieng ndaw si ko tuumal ne le 21 novembre bi weesu ci ay boori vingt heures téléphone am dafa sonné xamul kan la ndekete woo mécanicien bi la ci la ko mécanicien bi ne daa am luñ ko jox ngir mu war ko ko jox dal di ko jox rendez-vous ca Castor <laughs> ma ne ci koo xam ne xamoo ndaw si ne mu yegsee waa ji koy dugal ci néegam séquestré ko xoj ko padd ko daldi yegg ci moom waay waay waay yomb na ndaw si ne bi ko defee lim koy def nag ci la ko dal di ubbilee buntu bi ba noppi dal di koy menacé ne ko FBN jaar na fi ak MD te ñoom ñaar ñëpp ni ma la def laa leen def ci koo xam ne xamoo ko ndaw si nag dafa mujjee porter plainte ci kanamu yoon MD mécanicien bi nee na ndaw si li muy wax lépp dara du ci dëgg li am yëpp ci consentement am la amee ñoom ñaar xamante nañu bu yàgg ndax ñoo dëkk benn koñ te bii du benn yoon bii mooy ñetteelu yoon boo xam ni ñoom ñaar ñu ngi koy seq te am na ci boo xam ne sax gardien auberge bi moo doon seenub seede te à chaque fois bu mbir mi di am ndaw si daf koy laaj xaalis mu jox ko xëy na nag bii yoon ndaw si daf koo laaj trente mille francs mu dal di yëkkati quinze mille ko deseel ko 15000 ndaw si nag 15000 yooyu mu koy toppee moo tax mu sosal ko sos gu rëy gi am na wala amul. <laughs> yéenay seede waaye koo xamul woo la téléphone nga dem ci néegam te xamoo ko xamula man de jaaxal nam mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje beneen yoon ci yeneen xibaaru buzz